jaajëf auditeurs yi nga xam ne ñooy bàyyi xel rajo diine ji FM 91 point 8 waaye itam en même temps diine ji TV jàpp leen na jile jamono ñu ngi ni jëm ca dëkk bi la di Ala Gawri ngir amal fa li nga xam ne moom moo di confirence waaye dañoo jàdd ci dëkk bi nga xam ne moo di euh, ngeer jile jamono na gis ngeen askan wi ci daara ji nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Hadi fa la jàddoon ngir saafante taalibe ya fa nekk ñu ngi noonu nag. voilà ñu ngi noonu nag di continuer ngir wutali dëkk boobu nga xamante ni moom moo di. ala gawri ngeen bàyyi euh, fas yéene dund ko en direct ci seen télé bopp bi euh, di diina ji TV waaye ta en même temps di ko déglu seen rajo bopp bi di diine ji FM ñu ànd teewlu. ñu ngi noonu ba tey ci yoon wi jëm fi nga xam ne moo di ala gawre ma ne ko ñu ngi noonu ci yoon wi yéen mbokk yi nga xam ne yéenay siifur diine ji TV incha allah lépp loo xam ne ruusee na fa da ngeen ko jël gis ngeen ko. gis nga boo xoolee yoon bi metti na lool waaye sëriñ bi ndongo yi jëral nañu ko ko taalibe yi jëral nañu ko ko gis nga rang-rang bi poussière bu ñu ci dund waaye gis nga itam yoonu suuf bi li ñu daw sori lool diggante Kaffrine ga ñu jógee ko ak fu ñu jëm di ala di ala gawre doon dëkk bu soriante waaye gis nga ko mu ngi noonu sëriñ baa ngi noonu jëm ala gawre ji la jamono li tere ñu yegg fa bariwul sëriñ bi moom ngeen di jàkkaarloog otoom noonu ci DK 56 96 BM mu ngi noonu en direct si Diiné Dji TV ñu fa yéene toppandi deel lépp loo xam ne rek dafay ruusee foofu la ci ala gawre ci ay waxtaan yoo xam ne dafay jib lépp rek dinañ leen ko toppandil incha allahu rabbi ñu ngi noonu di la jamono yegg si nañu fi nga xam moo di ala gawre arife baa ngi noonu yegg si nañu sécurité baa ngi noonu sëriñ baa ngi noonu ci otoom yegg si nañu sécurité baa ngi noonu sëriñ baa ngi ci otoom sëriñ baa ngi noonu ci otoom ñu ànd teewlu ñu ànd teewlu Diakhté ci diine ji TV sëriñ baa ngi noonu wàcc si na sëriñ baa ngi noonu wàcc si na gis ngeen ko ñu ànd sëriñ baa ngi noonu wàcc si na ñu ànd sëriñ baa ngi noonu wàcc si na ñu ànd ak délégation bi mu àndal ñu ànd Só حسنات سمعكم عن أجيل mu nekk doomi alxaaji Amadou Niass borom gént bal kooku mooy sëriñ Haadi tey moo dikk fii ci dina dëkk ñu koy wax Jóobel buy ñu lay wax yow Oustaz Haadi wallahi kontaan nañ sa teewaay day am kontaan ndax suñu kontaan gi amul daluwaay waxuma laa waaye man kontaan naa nga yëg ne sa xarit say soppe fu ñu la nammee fu ñu la bëggee fu ñu la yàqal woon lay gisee mooy bële dëkk kon daal ñu ngi lay wax yow oustaz yegg nga ci sa dëkk na nga dal ànd ak jàmm ak salaam ak képp ko xam ne ànd nga ak moom. am nañ kàtt fii ci barab bi ñu koy wax Baye Ibrahima Diop ñu gën koo gëmee ni Baye bu Ndongo mu nekk borom dëkk bi fu mu mën a nekk rek. na teew ñu fexe gañe wax wax ndax sëriñ bi mën a jox jox mi kore kore sëriñ bi xeet mu man ma defal conférence kumpu nga xam ne noonu la ñu ko saa saa xeex ana Baye Ibrahim fu mu mën a nekk ana Baye Ibrahim Ndonga bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah alhamdulillah ñoo ngi sant yàlla Yüzyıllıkların Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Liyekkatesi rukkatı. İkkatı ve federasyonu. Muhammutu kidaya. Liyekkatesi rukkatı. Samallahu. Nina kotukum. Hamna dañuy jéem. Waaye mënuñu jotoon lépp ay def def def ci kër ay kàttan. li ci jàpp te mooy sëriñ bi salaamaaleykum wa rahmatulah beneen yoon. te dëgëral te yokk leen ci saa yokk leen ci barkat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni Baye Ibrahima ma ñu waxoon te mooy borom borom ne dañ ñëw na sama ginnaaw kon fu mën a nekk na jege si ñu jox ko mun na yooyu.

dëkk bu tedd bi muy jóge na guy di jox nuyoo bi imaam ak borom dëkk di ndigalu Cheikh Mouhamadou Hadi Niass ñi nga xam ne tey mooy ñëw fii seen dëkk nekk doomu Alaaji Amadou Niass loolu wax borom ndox maanaam ngeen xamoon ca karaama ya ngeen xamoon Sénégal yàlla ga ngeen xamoon ci jaxasoo mbokk yëpp fekk ni jullit yi te doomam moo ñëw nii seen pénc toog ak yéen di waxtaan ak yéen te ñaan nag ñu ñëpp ñuy ñaan ñu dégg bu baax kii yaakaar naa président ko warul jafe ndax képp ku nekk bu déglu rajo du seetaan télé yaakaar naa yaa dégg yaa kon gannaaw maa ngi leen nuyoo yéen ñëpp te ñaan lépp li nga xam ne moom la nuyoo bi làmb muy jàmm ak yërmaane ak barke yàlla na dugg ci dëkk bi. alhamdulilah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama على مجمع شؤونه وحقيقة كله سره سيدنا ومولانا محمد من روحه قبلة الأرواح وجسمه كعبة الأشباح وعلى آله وصحابته من الإصلاح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تحشر فيه الأجساد والأرواح bokki jullit yu tedd yi fi dajee ci dëkk bi di ngi leen ci seen tur ci seen sant ci seen jëm jëm nuyoo bi gën a tedd gën a ci sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yi muy asalaamu wa rahmatullahi wa barakatu jiital ci imaam Babacar Kanu teg ci borom ci di ñu dara jaalee jotaay bi ak Baye Omar Diop waaye ñu fekk ci jotaay bi suñu bàyyi bopp yoo xam ne ñu ngi ko miinee ci keppaara suñu waajur Sidi Mouhamadou Amin Niass di bàyyi bàyyi aadane jaane bàyyi ko jamafa nuyu président fédération bi nuyu président daayira bi jigen ñi ak góor ñi nuyu gan ñi nuyu mag ñi nuyu ndaw ñi li maam wax rek nak moy mawdu' bi dafa ne nit ñi ki ci gëna tedd ci yalla rek moy kiko gëna ragal ragal yalla la bëgg ñu waxtane ñun ñii ñëpp dañoo nekk ci tukki te ku tukki tukki mu yàgg soo ñibbee war ngaa yóbbuwaale sérité suñ tukki bii nag benn yóbbal moo fa mat yóbbal ci yàlla ku ko am bénéfice ku ko ñàkk perte mooy yàlla moom la yàlla ne wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa ragal yàlla moomu timit ci lay nit di gënee moromam nitam yeen ñaar ñepp di ay nit mu na am yeen a bokk famille wala ngeen bokk dëkk wala ngeen bokk rew wala ngeen bokk mer wala ngeen bokk gaño benn mbubb nga mëna sol gën ko muy ragal yàlla alquran inna akramakum indallahi atqakum ragal yàlla moomu caabi ñaari njëmmañ la dana tijji dana tëj lépp lu ñu xemem ci may ci xéewal ci teraanga adduna barsaka àllaaxira caabi ragal yàlla koy tijji lépp lu ñu ragal fii ci adduna ci ay musiba ci ay balaa ci ay mag ci ay gàllankoor ak barsaka ak àllaaxira benn caabee koy tëj mooy ragal yàlla ragal yàlla daal bu ko def bunti xéewal yëpp tijjeeku ci sa kanam ragal yàlla daal bu ko def xeeti musiba yëpp ay buntam tëju ci sa kanam nga mucc ci kon ragal yàlla dana mosle en même ragal yàlla dana musle ku bëgg a mucc ragalal yàlla